ci lay am valeur. juridique Moustapha Sarré ñoom tey dafa am loo xam dañ ko wax tey. ci seen séminaire bi Moustapha Sarré nga baal ma rek. parce que dañ ne eh, ci. pare. avant dernier paragraphe non non joxuma ko ah, parole non non non non joxuma ko c'est juste un rappel parce que dañ ne. Mm-hmm. les responsables et militants de la coalition doivent garder à l'esprit que le Sénégal au-delà des enjeux. propre à notre pays est aujourd'hui parmi les derniers remparts de la stabilité dans la dans notre sous-région donc loolu xëy na c'est une phrase boo xam ne c'est important pour ñu rappeler ko le fait que ñoom ñu wax troisième mandat. stabilité au moment gars yi ñu ngi wax. de difficultés qu'il a essayé de. de hmm. c'est clair. vraiment xam nga euh, Moustapha. <laughs> Mhm. Macky sal dafa amatul droit nekk candidat juridiquement amul droit nekk candidat politiquement amatul droit nekk candidat moralement amatul droit nekk pourquoi juridiquement mhm. lui il est juriste xam nga Macky Sall a été élu sous la constitution de 2001 la constitution de 2001 bi ko Ablaye Wade di taxawal c'était pour régler affaire entre autres raisons pour régler le problème des mandats des des nombre de mandats bu leen fàtte ni Abdou Diouf après le code consensuel dafa déverrouillé woon loolu daf ko dindi woon ne léegi amatul limitation de mandat quand Wade est arrivé au pouvoir en 2001. Mhm. il a amené une autre constitution pour régler ce entre autres raisons régler ce problème du nombre de, de, mais en 2016 c'était une réforme de constitution mmh. c'était c'était pas une nouvelle constitution mmh. en ce moment le problème de, du nombre de mandats était déjà réglé 2016 modification bi c'était pour régler la durée, la du nombre de mandats mhm. Macky Sall wax na fa wax waxeet sax c'est vrai que avis la woon c'était un avis qui ne l'engageait pas avis de du conseil constitutionnel ça n'engageait pas le président de la République pour la diminution de son mandat il aurait, il aurait, il aurait dû le faire mm-hmm. et ensuite beneen beneen erreur boo xam ne sax moom ñu di juriste xam na ci xam na ko mais amul sax disposition transitoire bu bu waroon a may Macky Sall mu yeggale sa ans yi bi ñu bi ñu voté constitution bi en deux bi ñu voté réforme bi en 2016. Mhm. lenn rek la ñu wax ci article 27. le mandat est de cinq ans. Mhm. ñoom bu ñu taxawee wax ni mandat ba bokk ci kon de juste le mandat est de sept cinq ans sans sans aucune disposition transitoire donc cinq ans yi bu dawee normalement en deux 2017 Macky Sall dafa waroon arrêté mandat amuloon benn disposition. parce que par comme comme maintenant problème mu durée lañ doon réglé. mandat boobu dafa war a bokk ci li ñu war a compter donc juridiquement parlant. Mhm. Macky Sall mënatul nekk candidat. ñaari def na ñaari mandat mais moralement. Mhm. comment peut-on être président de la République homme d'État nga xam ne suñu kàddu ñun ñëpp dañ ko jox suñu kàddu mu ñeme taxaw wax partout dootu ma nekkati candidat bu ngeen ma falaatee en deux mille dix-neuf ba pare mu war a nar a ñeme wëlbatiku encore ne. mu waxu waxugu ko franchement mu nar a wëlbatiku su fekkente ni loolu moo nekk ci xelam dama bëgg mu bàyyiwaat xelam ne gor ay ceen du ko du du du du ko du ko tënk kàddoom moo koy tënk te loolu ci suñu culture la suñu culture la Lat bu ko neexoon du daanu deqale parce que dafa taxaw ne da sama kàddu jiitu na ma dama waa Kajoor gépp dañ ma ne yow moo tax mënumaa dellu ginnaaw Birima ne Latiir son frère ba muy fal amari mbéri taal jëwriñ bul kàddoom moo ko jiitu ba muy nekk xale lu ko ko dig ne ko bu ma faloo dammeel dama lay def euh, jëwriñ bul te ça crée une guerre te waa kajoor yëpp dañ koo dissuadé ne ko bu ko fal mu nekkoon sama kàddu lu muy jariñ kàddu dafa am solo ci suñu société Macky Sall ñemewul partout au Sénégal à l'extérieur dans un livre il l'écrit dans un livre noir sur blanc ba pare bëgg a wëlbatiku ne day nekk candidat ñii dañ ko bëgg a sànq dañoo bëgg a yàq ñii ñii koy wax ne ko nekkal candidat dañoo bëgg a wàccee personnalité président te yaakaar naa ni le président je crois que je le crois suffisamment intelligent pour ne pas topp gaa mel nii. Ibrahima dañ bañ koy jox réew mi. Oh, réew mu réew mu dal lañ ko jox. réew mi nag sëriñ Abdou Lahad da doon wax naan ku fi bëgg indi ay ay wi ci sa kaw lay dal te ñoom ñii li ñuy def nii ay lay indi il faut savoir raison garder il faut savoir onze personnes étaient décédées en en 2011 ngeen ñu dimbali ba ren jii 2024 ñu organiser élection yu leer Macky Sall organiser ko daal di ñuy may dem loolu rek lañ lañ leen waaw waaw très rapidement rek Moustapha moi moi je pense sur la question du mandat moi je vais rentrer dans dans le juridisme. <laughs> ah, ah du ma ci dugg non du ma dama nekkoon fi 2012. Mhm. y avait ce même débat nañu fi Carcassonne tous les intellectuels ou des grands juristes des constitutionnalistes sont venus dans ce pays. oui 2012. Mhm. ñu nekkoon ci opposition bi lañ doon wax ñu dem élection ak Ablaye Wade. ah. loolu lañ doon wax nit ñi génn di xeex di taal dëkk ñu def sax convention signé tous les leaders de l' opposition Ablaye du bokk. du dem élection. Mhm. <coughs> man sax dama jàppoon ni su conseil constitutionnel validé candidature Abdoulaye Wade nit ñi duñ dem élection parce que c'est ça la décision qui a été prise mhm. mais terewul. Mhm. ba dem ba conseil constitutionnel ñu validé candidature Abdoulaye Wade gars yi dañu dem ci urne yi seen bulletin ñoom ñëpp a nga foofu. Macky leen jiite. Ah, wax mooy moom après moo mu dem waxee gars mais ñoom Tanor ñoom Ibrahima Fall fii lañ nekkoon di sànni xeer ci na ma yàlla jégal sax Tanor yàlla na yàlla place de l'indépendance fii lañ nekkoon place de l'indépendance l'indépendance ba ñuy dóor Ibrahima Fall ay lacrymogène. léegi loo ñu bëgg a wax foofu. ma bëgg a wax mooy <coughs> mooy sànq rek li ma jeexale sama wax. Mm-hmm. gis nga dëkk bi mm-hmm. foog ñu toog pencoo ko xool li ñuy bind ci texte yi lan la mu leer ci boppu nit ñi. Mm-hmm. nañu toujours suñ nekkee ci ay position ak ay posture di defendre yenn valeurs yi défendre yenn idées yi. di ko xeex bu posture yi changé ak position yi taxawaay yi changé. d'accord Pape Makhtar quelques secondes pour. non dama koy ni rek moom lay gaaruwaale pour. non gaaruwaale mais non li ma bëgg wax non li ma bëgg wax mooy. Euh. conseil constitutionnel boobu ba tamit ba tey. Barki Dembo Ndiaye on est parti aux élections législatives. am na lu fa xew noonu. seen liste. seen liste. lu kenn mësul gis ci yaa ngi dégg mais nit ñi dem nañ élection. débat juridique bi. nañ ko bàyyi juridique bi politique yi toog waxtaan man su fekkee sama position ferm nag laay wax. ak li ma gëm. parce que tamit man ma jàpp ni centre bi moom fu mu bokk. waaw mais centre la wala pouvoir non dégg nga wax li ma gëm laa wax parce que man nekkuma si gëwuma si euh, injonction wala ay xalaat yu ñuy jëlale toujours ci àll bi duñu ko imposer ñu koy appliquer man gëwuma loolu. Mm-hmm. on est une démocratie on est majeur on a des valeurs on a des idées on a une histoire. Mm-hmm. li doxal suñu réew ñun ñoo koy bëri na ci réew mi fii tax ñoo xam te dañuy wax affaire mandat premier deuxième mandat d'accord ñu sax ci ay limitation des mandats. d'accord mënuñu ko wax. parce que tey mën nañu am fi suba benn président boo xamante ni président bu baax ci réew mi la liggéeyal réew mi waa réew mi bëgg mu toogaat fii qu'est-ce que vous allez dire. bu deewee nag limitation ah, bi man man man man je pense que ni vraiment. débat je donne combien de secondes à oh, bu la neexee sax dix waaw euh, dix dix rek li ñu ciy wax euh, yaakaar naa wax nañ ko si nekkatul sax débat juridique euh, parce que ñëpp xam nañ ni vraiment que amul benn mbir boo xamante ni ci wàllum droit mën na justifier candidature Macky Sall. Euh, moral tere na ko yoon tere na ko éthique tere na ko lépp tere na ko malheureusement nag dafa am ñoo xamante ni seen ay avantages. seen privilège nañuy nañuy nañuy defaan xam nga tey ji bu ñu la defee ministre wala ñu def le DG ci quelques mois da bëgg mu yokk parce que aussi privilège dañoo neex donc foo toog di ko layal jéem fexe ba moom mu toog proroger mandat mais président Macky Sall ci boppam war na mën a fàttali contexte bi nga xamante ne mooy 2000 euh, 2012 bi ñuy rappelé euh, souvent ak yooyu noonu euh, benn mbir boo xamante ne aussi dama ko siy ñaawlu mooy yenn parti politique yu mag yi bu ci mel ni PS tey ji nangootuñu am di topp président Macky Sall te am na loo xamante ne lu ma leeral de Tanor Dieng euh, yal na ko yàlla yërëm xaar ko ajat bu fi nekkoon tey ji euh, compagnonnage ak Macky parce que lu mu ko waxoon leer na 2024 mm. la yam mm. dañu doon am candidat 2024 mais tey jii dem na euh, du du du Aminata Mbengue jaay du kenn ci biir PS koo xamante ne nangu na tey ji euh, li nga tax héritage bi nga xamante ne Senghor bàyyi na ko fi ñu nangu ko assumer ñenn ñi ñoom Bokar dem nañu mhm. seen yoon. bàyyi ko fa su ma bokkoon su ko fa mais c'est malheureux mais je pense que ni daal vraiment débat troisième mandat bi. war nañ ko war nañ ko mën a dépasser. Mame Birame waaw euh, non man 30 secondes rek. bari na. waaw 20 secondes mais dama ko bëggoon a dama ko bëggoon a ci réaction gouvernement par rapport ak rapport bi. Hmm. pour dire tout simplement que li ñuy wax nii yëpp. Euh, euh, communiqué conseil des ministres. Hmm. benn phrase tout simplement la wax ci rapport bi benn phrase. te c'est loin d'être ce que monsieur Thiam a dit ici ma lire la phrase bi. Issa li li ñu wax kon fu mu jógee. mooy mooy mooy loolu yëpp benn phrase la. <laughs> mooy ah, loolu yëpp benn phrase benn phrase kese la ñuy wax ci rapport bi te xam nga le président. phrase gudd na de kon. dafa gudd France comme ni ñuy bind bindee la mais xaaral am mu ci lenn lenn luy wane ne président bëgg na ay perspective am ci li xew. mu ne à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'audit de la gestion du fonds de riposte de solidarité contre les effets de la Covid-19 le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'examiner avec attention les informations publiées les recommandations euh, euh, euh, formulées. formulées. maanaam mooy li ñuy def nii examiner le rapport. <laughs> et de prendre. Ah, yow eh, eh, examen <laughs> ah, premier ngay ngay méngale examen dans un projet dans un plateau de discussion. mu ne et de prendre et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d'éclairer l'opinion mooy maanaam ñoom li ñuy def nii. Mm-hmm. toog ci plateau télé yi wax ak sénégal yi. Mm-hmm. maanaam ñoom lu ñu wax ci rapport bi ne moom la ñuy def. Mm-hmm. mooy nañu dem ci plateau yi. ne li ñuy waxal defuñu ko. d'accord. Euh, Ramatoulaye Sarr. Moustapha li ma ci wax rek mooy euh, gis nañu chef de l'État dans des vidéos partout mu wax ni dootul dootul présenté mais mhm. maintenant le dernier mot comme conseil constitutionnel mooy validé bu constitu conseil constitutionnel validé euh, sa candidature le dernier moo revient au peuple rek. ñu éviter ñu éviter rek taal réew mi. su boobaa on ira on ira aux urnes. fii moom amul le dernier mot reviendra au population la ah, validation amu fi de. fee comme Ramatoulaye nag. waaw c'est vrai man Moussa Vano ce que je veux dire rek mooy que li may wax comme ni ko monsieur Ndiaye waxee mooy qu'on nous évite li fi daal amoon 2011. comme Macky nous évite. non qu'on nous qu'on nous évite c'est c'est moom ba léegi xam nga moom ba léegi sax je lui impute benn présomption. Mm. parce que ba léegi moom waxagul. kii tabax pali fële ca Diamniadio. waaw moom ba léegi waxagul ñun ñooy wax rek mais moom waxagul. donc man dama naan wax na créé parti. aywa ji. waaw waaw Pape Birame dama mel rek. nañ ñaan rek. ndax li ñu fi dundoon 2011 2012. ñu bañ ko dund buñ ñu bañ ko dund. amiin mais ci wàll boobu également bu daree dem ba nga xam ne conseil constitutionnel. bàyyil bu naree. non déedéet bu naree dem non bu naree am laa la wax. bu naree bu naree am. dama leen di fàttali rek benn affaire. Pape loolu baaxul. <laughs> barki démb Ndiaye fii président conseil constitutionnel. ak membre conseil constitutionnel yu Guinée. Guinée ñiy validé woon troisième candidature Alpha Condé. Mhm. modifié constitution bi ñoom ñëpp ñu ngi ci kaso bi. waay non Sénégal du ak foofu. baax euh, di gërëm.